am na war di doxee parce que bu fekkee ne xale nga nekk si yoon di liggéey da nga war a gëm sa liggéey bi ngay liggéey mhm. da nga war liggéey bi da war a def tout pour bu mën ko mokkal ko mhm. man dama ne bu doon kaamil làmb wàcce naa ko mhm. parce que gëw ma ne man nit mën na ci ëpp xam-xam mais teewul damay gestu mais saa ma demee ci làmb su nit ñi ne defal lii damay defee loolu def lee bu xale yi may tëgg sax ci làmb yenn saa du leen xam mais bu ñu leen innové mais xam nga amul kenn ku ñëwee jël ay millions tey ban mbër nga gisoon ci suuna boobu bu bëru fa bëri boo xam ne dañ ne mbër buy kat lii ak lii ak lii ci moom mais da ngay jël yi jëm naa jaay wane leen boo la wane ci loolu nga war a innover bu nga xam ne tey premier amateur nañ kii kat nañ la ko jox bopp mhm. parce que lamb ji moom liggéey rek moo fi ne mhm. ngay jëriñu si liggéey boobu si lañ toll di mhm. di def di def bu yàlla suñu moom suturaal ñu ba ñu tuddee waa Iba Mar Diop mais loolu liggéey moo ko waral teg ay xale yu ndaw tey dem bu fesal Iba Mar yi tuddee roi loolu sant yàlla ah, ñu gis euh, bi nga fa jógee muy lu rëy macha allah nga lëkkaloo ak li nga xam mooy waa LP Events démarche diggante Coly ak Ada ndax ndax ndax xawoon na yomb wala yombul woon ci lëkkaloo bi. waaw yomb na yombul parce que xam nga li am solo mooy nit ñi nanu bëgg nanu nanu nanu gëmante. waaw te LP Events tey dañu ma gëm man ma gëm leen. Mhm. ku ci mel ni Idi. di sama xarit parce que tey bu dul dara yeneen peut-être dina dëgg dara si man mbaa ma dëgg dara si moom mais day bàyyi mu seet xam ne ànd moo mel noonu. ay ñoom ñëpp xama peut être nit ñi bu nekkee di liggéey ñi dina wax lii ñuy wax lii mais moom dafa gëm xam xam sama capacité tamit mhm. xam ne petit bi sax maa mu jox ko cinq cent mille dina ko indiwaat mais du yàqu parce que li gën a garaaw mooy Sénégal pour nga xam li gën a neex mën mhm. nga xam kan ngay liggéeyal mhm. xam kan ngay fan ngay dugal ko foofu parce que kooku fekkee dafa mën li muy def boo ko joxoon milliard sax milliard boobu yow mën nga nelaw parce que loolu dina la ko indilaat day indiwaat bénéfice rek mais moom perte moom mënu ci am mhm. su fekkee ne xamoo nag su la joxee peut-être mën ngaa dem def yi demee échec mbaa loolu mhm. mais ñun lamb gëm nañ ne gëm-gëm bi ñu ci am ak liggéey bi ñu ci liggéey ak suñu lu bëri suñu àdduna mhm. gëmuñu mën nañ cee dem ci na di échec ñun gëmuñu loolu man loolu man moom loolu def ko sax sama mais peut-être gars yi mënoo def seen bopp lii ak lii parce que Sénégal la ne réew la ne te réew mun ne nit ñi nuy wax moo ëpp lu ñuy liggéey ñu bëri bu ñu war liggéey dañuy toog di wax dañuy toog di wax di yàqal nit di def loo xam ne tey nit ki da war avancé duñu ko def paxastal ndaw mm-hmm. di nga gis nit koo xam ne tey ceer nit ku baax nit ku am valeur mm-hmm. mais di la rom te yow nga nga jéppi ko nga wàcc valeur parce que lan nit a foofu yàq deram nit a wax ci moom lu ñaaw te loolu mm-hmm. rafetul nit ñi nan defaraat suñu jikko yi defaraat lépp li nga xam moom lan am jéem a defar parce que nit tey yàlla su moom am na mu def si moom muy man muy yow muy keneen loolu kenn mën dox bu du ko am ci àddunaam kenn mën dox bu du ko jàngante ci àddunaam parce que lépp lu am rek yàlla suñu borom moo ko sàkk moo ko moom la neex mm-hmm. mais tey man li may wax gars yi rek man sa du dama wax gars yi lu waay a ci petit mm-hmm. man baal naa ñëpp yoolu kenn kenn yoolu maax mm-hmm. parce que maay xale maa bëgg maa ne si yoon maay liggéey yenn saa yi ma dégg lii yenn ma dégg lii mais garaaw que adduna la quoi parce que fekk nga ay ni doon ko wax fekk nga ay doon ko def mais lu waay wax lu waay def rek loolu garaaw rek naan ko amul problème daal di bàyyi mu jàll euh, na wala métti non météo bu ngeen déggoo parce que yenn saa yi nag gars yi dinañ waxtaan kii wax fii kii wax fii mais après da ngeen toog waxtaan. xam ne ñeen la ngeen wax lépp bëgg-bëgg bi rek mooy réussir. réussir mooy LP event réussir petite production réussir. Mhm. moo tax wax ji moom lépp dañuy mën a waxtaan rek. Mhm. teg ko ci yoon. Mhm. parce que làmb bi ñu jëmoon du làmb ju ndaw. mais am na ñoo xam ñoo ko bëggoon def làmb ju ndaw. mais ñun man sama gëm-gëm ak sama liggéey ci làmb. maa jël ñoom ñëpp boole leen. te am na mbir yoo xam sax tey man dama doon toog sax ay nit ñu ne ma petit mbër yi mu teg de lii ak lii parce que nit ñi. nit ñi teewul seen lamañ. chaque jour waaw nga gis ñi te yow bu fekkee da nga jël say millions di ko investir war nga ko def fi lu leer loo xam ne lii. ma koy ji bu ma jiyee sama tool bi suba dina sax. man ci loolu laa toll ci liggéey làmb. Mhm. ba moo tax bu ma ñëwee keroog dem ku ñëw ci sax kontaan nga. Mhm. ñu doon bañ nangu nanu am ñoo am da doon bañ mais dañ lay woo nga ñëw ñu ne yaa ne. Mhm. mais da doon bañ mu njëkk mais loolu du man nekkuma fi yàlla suñu borom moo def loolu moo defee tey peut-être bu defee léegi na réussir su ko neexoon mu def loo xam ne tey lamb ji sax du am. dem bi nga ñëwee 6 heures gis ji ni mu mel taaru macha allah loo yëg sa yaram. non Thierre la ma jàppoon Iba laa jàpp rek. Hmm. dafa am fu ma jëm ci lamb. am foo lamb. Euh, waxoon naa ko ci benn télévision may leen dafa am fu ma jëm ci lamb eggeegu ma. waaw te ma jël mooy am fu ma egg am fu ma teg sa am fu ma dem. arnational hmm. man fekk dama bu tëj porte yi bu policier a si lamb lu ma neex tu loolu du yàgg dara loolu am parce que affaire bi dafa foo foo foo war teg sa bët teg sa bët ay combat benn combat mu fees loolu du loolu du bi affaire bi da war a ñëw def ay journée journée journée jéem a def ne par saison man ci loolu laa toll di def jël xale nga xam ne kenn xamu leen nga jënd naa génne parce que lamb ji am na plus de quinze mille licences yoo xam ne kenn xamu leen mhm. ñii dix mille lañ ci xam mbaa cinq ñun ñu promoteur ñu war a góorgóor jéem a génne xale yi ñu dem bëri ji te man ci loolu laa ne nu ma ko liggéeyee tey bu làmb gën a avancé bu man bu ñu waxee làmb ñett ñi nekk ci làmb tey hmm. boole ma si man ci loolu laa ne hmm. réussir am na dem wala amul mais réussir moom am na sant nan bu baax parce que tamit euh, teg mu fees yombul làmb dina gën a fees làmb dem ji mais est-ce que dina gën a leer làmb dem ji parce que dem dañoo sécurité porte yëpp bu kenn amul ñëpp ñoo xamul sax ñëw nañ làmb pour def ay affaire sax dañoo échec danoo échec parce que programme li gën a garaaw nga xam lan mooy programme parce que dem porte yëpp leen seere am na ñoo am yi nga xam ne ñii ñëw na ci làmb mais ñoo ñëw pour làmb pour naxe mais mënuñoo naxe parce que gars yi fépp foo xam ne kuy naxe dafa jaar rek mm. fat nañu ko mm-hmm. Mm-hmm. Euh, léegi seen retour wala boog seen prochaine lan la loo leen di waaj waaw ñu ngi waaj rek comme d'habitude rek parce que mm. ñun ñu ngi ci làmb di liggéey mm. commercialisation bi fi mu toll tëj na presque dama jëm man moom dama jëm le 17 juillet en 17 juillet mbay boo yëmbal tabaski boo am émission xam nga fi bu tëggee man maa ci war a tegaat maa war a tëjwaat Iba Mar Diop mm-hmm. le 17 juillet mbay nag boo yëmbal mm-hmm. yi teg ay xale yoo xam ay xale yu yoo xam lamb bay na yaakaar baax baax ñu war cee bëri ñu bëree bëri mm-hmm. waaw xasa ah. tey waaw fan maa ngi dégg petit tamit def benn sortie naan dafa pare pour décrocher diggante Ama Baldé ak Lac de Guiers loolu bëgg coow la wala lan la non tolluwuma ci fu may coowee parce que dama nekk ci yoon sama yar su ma ko waxoon ci làmb ñu bëri mën ñu ko gëm ku ma xam fu ma juddoo xam sama cosaan nga xam kii mooy kan ñaataat làmb xam ni kii xale la comprends nga mais lu ma lu ma gëmul mooy man gëwuma xam nga tey bu ma neexee bu ma bëggoon na wax tey mën naa wax chaque jour mais jëwuma ci làmb pour wax mais dama ñëw pour liggéey mais lu ma la wax su ko gëmoo ko mm. toogal seetaan Ama Baldé mu ngi fi Lac de Guiers mu ngi fi mm. Modou la mu ngi fi keneen a ngi fi mais làmb mu ngi suñu kanam làmb mu ngi suñu kanam ay xel lañu te ko def emblème Lac de loolu loolu du question nit ñi ñoo ko diisal mais dara diisul fii Sénégal la dara météo fi mhm. lépp mën naa ne si mhm. boo amee gëm-gëm bi mhm. waaw mais ñu ngi xaar petit décroche combat affiche bu mag a mag non bientôt mun nan ne mun ñoo toog une semaine ba deux semaines to décroche nu combat mais instant yi fi mu toll ni doo ay règle yu ndaw rek yu ñuy def buñ allah petit production LPFN mën nañoo àndaat dinañ àndaat liggéey combat teg combat boo xam ne buñ ko tegee amateur dinañ tëjaat seen bopp parce que amateur gëj nañoo am lamb ju neex lamb dëm ji wax dëgg fa di félicité Ada Fass di félicité Coly Faye parce que ay jàmbaar lañ ay góor lañu parce que góor mooy boo jëfanteeg sa nawle rek moom mu kontaan si yow Coly Faye tamit mën naa ko décourage moom góor la jàmbaar la yàgg naa ñëw ak ay nawleem di leen daan bu ñàkkee lamb la après su ko dee di mbëri war ak keneen te parce que li ko war def na ko indi na supporter promoteur bu ko teg doo perte mhm. Ada Fass noonu kon ñooñu ay jàmbaar la Ada daa jëlaat seen avance non loolu moom lu ñu après nañ ci gën a waxtaan <laughs> li ci def code nañ ci gën a waxtaan parce que làmb mu ngi suñu kanam ñun ñu ngi liggéey mhm. waaw xam nga di gërëm mbëri bëri woon foofu yëpp parce que tamit ñëpp ay jàmbaar lañu mhm. parce bëri woon yëpp ay jàmbaar lañu waaw parce euh, ñoom li ñu def mhm. seen i morom defuñu ko ci làmb parce que li ñu def seen i morom defuñu ko ci parce que fi dimanche passé mais dimanche passé ñu doon bëri doon bëre mais est ce que tey boo dimanche passé li fa génn ak li fa gën tey mënoo mënoo ci am différence moo tax ñu ne xale yi ay référence lan ñii dañu war a bàyyi xel mhm. ñoom Ada Fass ñoom Coly Faye lamb amatul ay Balla bu ma jóg yooyu de mhm. xale yi xale ci xale yi promoteurs ndaw yi ñoo koy yor mbëri ndaw yi ñoo koy yor parce que sa gars yi jël na système bi do xam nañu ko mhm. waaw di sant ñëpp sama moo nay moo frère waaw waa prix bi ñi may ñaanal pour gis ñi di ma ñaanal di déplacer ay dëkk ak dëkk ñëw di ma ñaanal waaye sant ñëpp parce que yéen da ngay toog mu métti nga gis say xarit am ñoo xam ne leen di gis bu naqaree am ñoo xam ne bu neexee am ñoo xam ne leen di gis sa diggante ak Fallou Ndiaye lan la gis naa démb toogul taxawul jàpp ci combat bi non Fallou Ndiaye moom sama idole la sama grand la parce que dama fekk foo xam ne du Bambey du fii du Dakar dama fekk Bambey mooy doon booy di teg mbapat mu ñëw fa def geste bu rafet quoi moo ko am ni Moussa Fall ñu jàppante boobu tey tamit dara ñaawul mënu ma dugg tey loo xam ne woowu ma ko na nga lii mu ne ma lii ak su ma doon def day benn affaire mu ne ma bu ko def ak Serigne Touba ma ko def parce que moom am na cër bu ma ko jox te loolu mooy doomu aadama man su ma ànd ak yow am naa yow su ma la jàppee jàpp naa a jàpp loolu jàppee ma ko làmb quoi moom jàpp naa moom sama grand parce que lu may dugg da koy xam waaw su fekkoon ne man dafa dama woon beneen jikko tamit ma woon ko beneen jikko parce que man moom ceedu laa mais moom sama waay la sama xarit la di sant mon ami Galzo 94 ci Touba di sama waay ñoom Mara waa Medina waa Petit production bi ñoom Big Mo ñoom Pogba xama sant dëggal mu ngoy sama grand sama xarit tamit di ko sant bu baax waa ASC gal mafia gal seen bi Abdoulaye Charé ñoom Abdoulaye Charé teg na baat bi xama dañ si jàpp bu baax ñoom ASC ba foofu yëpp daal xama di sant Youssou Fall gars yëpp maa di sant Omar Sow Omar ma sant ba ma ko sama papa la sama papa la sama xarit la parce que dafa am moment boo xam ne day difficile da koy gis da ciy taxaw parce que moom buy taxaw du taxaw sax ay ay cent mille ak deux cent day gën million jox la ay million jox la so li mu la jox dana du ko feeku moom dafa jàppale jeunesse bi dafa jàppale gars yi na ko Sénégal gépp di ñaanal di nuyu waa Petersen Omar Gambien dafa sonn ci sama combat bi da si jàpp billaay walaay maa ngi koy sant di ko gërëm parce que moom sama frère la mais sama xarit la jàpp na man moom ñoo bokk ndey ak baay saa bu ma xewlee ñoom ni ñu taxawee man ñi ma bëggoon ndey baay suñu taxawee noonu di sant ñoom Mohamed ñi nga xam ñoom jaay bi di sant waa LPFN petit production bi xam nga di sant ñoom Aziz Kolobaan di sant ñoom Mara Pro ñoom Boy Séeréer sawaay Momo sant naa Ndakaaru ñëpp daal sant naa aduna sant naa Bambey sant naa waa Ngoylu si la sant naa samay mbokk Alpha sama booy bi ñoom Albes sama fils Albes maa ngi sant sant yaayam parce que ñoom toog ceeb yi mm. bi dafa neex sant journée bi neex journée bi neex sant Ndakaaru sant Medina sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp gërëm sa caméraman gërëm Jili gërëm naa ñëpp Ousin sant waa Médina pour lavage bi yëpp li leen wax ne ku bëgg oto bu baax location boo ñëwee am na fi boo bëggee raxas oto tamit am na fi boo bëggee raxas moket am bi yëpp pour lavage moom c'est le meilleur jamono ji ci raxas oto ak jaay oto ak jën oto yi li wax rendez-vous ku bëgg dara ci affaire oto boo ñëwee pour am na fi seen idélia groupe di defar ay bâche ay affiche lépp loo xam day jëm ci wàllu événement ñoom doon tam lu koy def génne bâche bâche ak lépp la ñuy def idélia groupe mhm. nekk fii ci Medina di leen sant bu baax quoi. Mm. Mm-hmm. parce que jàpp nañ ci ko defaral. ñoo mm-hmm. naa gërëm naa leen. merci beaucoup.